bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu asbaxnaa wa asbax almulku lillah walhamdulillah wa laa ilaha illa allah wallahu akbar allahuma inna nasaluka xayra ma fi sadri wa xayra ma baad naaudu bika min charri ma fi haza al yawm charri ma naar mbokk yi seen rajo ci waxtaani fajar yi mu leen di defal fajar jot si na ci kàttanu sunu borom tabaaraka wa taala jëleen ko defal si ngeen ci ànd mbokk Alioune Sall ginnaaw bi sant yàlla subhaanahu wa taala ñaan jàmm ci réew mi ak réewi jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke Sylla mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix suturaak teraanga ak poche def dara démb ci <clears throat> sunu waxtaan ñoo ngi doon junju dem gi yonent bi dem ilal masjidil aqsa doon junju dajegem <clears throat> dajeg yonent ya al wa rusul ñoo ngi doon junju ñëfa fa jël kàddu lu jiitu muy jël kàddu ñoo ngi doon junj document bu bees bi nga xam ne mooy règlement intérieur bu nga xam ne association bi tudd <coughs> al anbiya wa rusul ñoom ñoo ko bokk ñoom ñëpp muy congrès boo xam ne bi kon plus débat la mu jël ko nag romb yonent yooyu ñëpp ne tekk bàyyi ko mu génn ndeysaan allahu akbar ba génn ak ba waaw génn ak yiw ga waaw tabarkal la ak ak téy ga ca gàmmu ga 1968 su ma jubul wala boog ca jamono laqad manna allahu alayna isbaasa fiina ndeysaan xutba bu arabam mu neex boobu radiallahu taala mu daal di ñëw jibril ne ko acca mu waraat ca fas wa nga xam ne dafa am ay laaf di boole daw ak naaw ndaw gaaw fas dafa am ay laaf di boole daw ak naaw ñu ànd ba jibril dem ba fa mën a yem ne ko fii laa mën a yem gunge àgg àgg bokku ca déedéet léegi ñaara war a séq waxtaan wi mu ne ko man fii laa mën a yem waaw xam nga léeg-léeg safoor yóbbu la palais ñëw gaar ci parking bi nga dugg gi chef de génn ne ko ñu dem <laughs> wallaay ndeysaan maa la ko wax de sëfoor ñaari sëfoor yi ñoom xam nañ ci dara ñoom yëpp la Njaay Pikine ginnaaw raay yóbbu sa patron ba agsi ngeen ànd dugg ca <clears throat> yëf ya léeg-léeg du am léeg-léeg ca parking ba ngay nekk léeg-léeg nga nekk feneen fu dul foofu jibril comme moo ànd ak yonent bi dafa am fu ñuy yem fas wa yem fa jibril yem fa yonent bi jàll la ko jàllale lu yéeme loolu raf-raf raf-raf moo ko moo ko jël si waaw moo ko jàllale <coughs> ndeysaan ne ko soyez bienvenu <laughs> ahlan wa sahlan yonent bi ne ko shukran daal di jàll si bi yonent bi agsi alayhi salaatu wasalaam ñu defal ko ngan waaw jox ko dara loolu ñu nogay di defal léeg-léeg maag maag mbakki si bu ñu fa demee waaw <laughs> defal ñu soow boo xam ne dañ koy ruux rek tabarkalla xoro xoro ne acca naan leen léeg-léeg nag mu tane <laughs> waaye yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu agsee ñu jox ko ñu jox ko ab palaat bu rafet teg ci ay kaas yu rafet walla ñaari kaas <clears throat> xelli benn bi sàngara xelli benn bi soow waaw ndeysaan malaaka mu rafet ñëw daal di sukk jox ko palaat bi pour na ci tegg benn <clears throat> na teggi sàngara si naan wala mu teggi soow mi naan bum ci naan baax na ndax booba sharia ñëwagut bay araamal sàngara ak di di daganal soow sharia ñëwagut <clears throat> bi malaaka mi sukkee jox ko palaat bi palaat bi yonent bi teggi soow ma keroog dafa mel ni meeting bu tas ndax ndax malaaka yi bég gi ñu bég lu tax ñu ne ko hudita ilal fitrati loolaa leen bégloo mbokk yi danaay wax ne euh, sama oto bi may war euh, essence daa xaraam ci moom gasoil moo dagan ci moom moo tax du ma taxaw ci benn station ne ko solal ma essence solal ma super déedéet super daa xaraam ci moom sama oto bi may dawal ni super daa xaraam ci moom gasoil la dagan ci moom <laughs> oto yi gasoil yi super daa xaram ci ñoom oto yi ñi jël super ga gasoil la xaraam ci ñoom lu jar day bàyyi xel la moo tax oto bi bu bëggee consommer li xaram ci moom mu feeñ ci moom laaj ko Moussa Bey euh, ca euh, tabarkalla Sandaga walla ca avoni Lamine Gueye ñu mas a ànd benn bis ñuy jàng mu may jàngali oto ñu dem ci station bële nga xam ne moo nekk ci boo wàccee pont bu bees bi à gauche foofu la nekkoon dafa mel ni léegi tabarkalla nu ñëw moom comme dafa am ñaari oto ak ñett mu jaawale daal ne waa ji solal ma super euh, trente mille waa ji sol super trente mille ndekete oto bi mu yor du sol super gasoil lay sol falan bàyyi oto ba jël taxi <laughs> ndax lan super daa xaraam ci oto ba ba noppi mu def ko ca gis nga mbokk yi organu nit tam nun la mel yàlla dafa bind nit defal ko benn machine ci biir xol bi ci biir dënd bi <coughs> waaw defal ko serveur ci bopp bi <coughs> léegi nit nit dafay consommer soow meew bisaab boisson bu sucré yooyu yëpp bu ko nit consommer amul problème waaye bu leen fi bàyyee dem consommer bu amul bu amul yooyu xanaa dafa am alcool nit du dem moo tax loolu di commencé yàq dundam gi waaw moog nit kuy tux ñoo yem ak xeet boo ci mën di def nag baaxul ci xol baaxul ci yaram waaw tabarkàlla dégg ngeen tabarkàlla professeur bi lim ci lim ciy wax ci wàllu woowu waaw tabarkàlla ala kulli xaal yonent bi daal di jël kaasu sow ba sa malaaka yi ne ko hudiita ilal fitra waaw wiiw muhammad yow jël nga li nga war a consommer ma ne te booba araama la guñ sàngara waaye malaaka yi xam nañ ne euh, nit consommer bi mu war consommer bi mu war a def ci wàll woowu mooy soow ak meew ak i mbokkam waaye sàngara ak i mbokkam waru koo jël <coughs> ndax yonent bi complexe wul sallallahu alayhi wa yàlla na ko yàlla fayal maam Cheikh El Hadj mooy ilaahi jaasiyan xayral xuruuni waaw bi bi mu naanee soow ba noppi waaw ñu ne ko mën ngaa jàll si indi document bi mu ñëw jàll si indi document bi suñu borom eh, tamponné ko in diina indallaahi islaam waaw li nga nun liggéey mat na yonent yi ñoo la jiitoon di ko tabax <coughs> mu ne mu ne jaajëfal leen ah waaw na leen jaajëfal waskur fil kitaabi waaw <laughs> ay suma borom waskur fil kitaabi diw waaw jaajëfalal diw ñu ko jiitu woon ñépp te liggéeyoon ca liggéey ba suñu borom ne ko bul complexe tudd leen bul suul jëf ndax yow goree di woo mu ne ah, waaw mu ne ko yow goree di woo tey baadoola woo allahu akbar maa anta bi ni'mati rabbika bi majnun waaw goree di woo baadoola woo allahu akbar sallallahu alayhi wa kon nag mu ne a mu ne ko ñi jiitu ti liggéey ci association bi tuddal seen tur mbokk yi loolu day am waaw loolu day am te it moo jur sunu gàmm yeeg sunu màggal yi looloo ko waskur fil kitaabi diw da leen tudd waaw mu tàmbali tudd leen waaw diw moo def na diw tuddal diw fàttalikul diw rek tabarkalla hmm? mu ngoog ala kulli xaal mu tudd ca mariyama tudd ca Muusa tudd ca Ismaayil tudd ca Idris tabarkalla ak liggéeyu rëy yañ ca def wa man yabtaxi xayral islaami diinan falan yuqbala minhu sunu bar mu ne association bi la reconnaître waaw ndax fi ne association yi ci dëkk bi suñu amee tampon ministre de l'intérieur dañ ko reconnaître tabarakallahu ala kulli xaal yonent yi ko jiitu woon te tabaxoon ca liggéey ba mu tudd leen Euh, ku mel ni lóot ngeen baal ma ku mel nga xam ne boo jëlee lii ko yàlla signal tey association bi tudd al islaam juróomi baat la al islaam juróomi baat la waaw al mustarshidoona ñooy ñooy ñooy defee noonu yëf yi di di ko décortiquer je pense que noonu lañ koy defee professeur <laughs> ñu ne al islaam juróomi lettre la alif laam alif siin laam alif miim muy juróomi baat waaw eh, soxna ñëw kër gën ndeysaan ni ma boo waxatee soxna sala yaa ngi note nanga ma ca boole ndax maa ngi note <laughs> ma ne ko baax léegi kon nag yéen ñi note al islaam alif laam alif siin laam alif miim yàlla yónni ay yonent ñoom ñoo tàmbali tabax boobu maa ngi ci al isra wal mi'raj mi xewoon démb ci guddi waaw jàpp si tey nga xam ne tey ci bëccëg bi ci la yonent bi tàmbalee joxe information wu damaa rañaanoon biig <laughs> allahu akbar waa màkk ne ko nga ne lan mu ne damaa rañaanoon biig keroog ña wërte dem madina keroog lañ génn ca yëf ya keroog lañ segg yëf yi keroog lañ ko taataar taaraar keroon la ñu génne résultat wu al ñu war a dem madina fekk ji liggéey ba ak ñi nga xam ne bu ñu demee yàq ko keroon lañ bàyyi damaa demoon damaa damaa demoon baytul damaa demoon baytul maqdis baytul waaw baytul mas maqdis almasjidul aqsa laa demoon démb demoon naa nangam nangam léegi ku ne ko ngëneel lan <laughs> loolu de rëy na kenn ku nekk lan ko wax am na ci koo xam ne dafa ñëw ne yonent bi dégg naa ñu ne da ngaa demoon baytul maqdis bi mu ne waaw mu ne ko dégg naa ñu ne da ngaa demoon sidratul muntaha mu ne waaw waa ji ree de daal na yonent bi yëkkatil sa tànk ndeyjoor ka yàlla yónni woon ak woyof ga daal di yëkk ci tànk ndeyjooram mu ne ko jërëjëf téye ko foofu nag te yëkkati góos bi <laughs> yonent bi ne ko loolu ku ko def daanu yonent bi ne ko loolu ku ko def daanu mu ne ko ginnaaw mënoo yëkkati sa tànk bi yëkkati bi kon noo yëg ci asamaan si loolu la ko wax daan waaye bal si yi waay daal di wax wax ju salfaañoo yonent bi ne ko demal nga wax ko Aliyu waaw ndeysaan euh, borom dun xaaf waaw baabul ulumi abu sibtayni waaw ca raay bu maam Sëriñ Tuubaa ba nu daan ñëw ne ne Seydina Aliyu man de yonent bi dama yebal ci yow ndax dafa am benn kii benn euh, épreuve moo def ak moom Euh, pour mu wax ma daal euh, ndax dem na ci sidr muntaxam déet si naa lim ne ko naka la mu ne ko dama ne ko yëkkatil sa tànk ndeyjoor bi moom tam loolu wax yëkkatil sa tànk ndeyjoor bi Alioune daal yëkkati mu ne ko yëkkatil goos bi te bàyyi fi bii Alioune bocci dun xaaf rek corbaat bi waaw ñëpp ne ko ya Alioune li nga def nag mu ne yunte daf ko yebal ndax ma rey ko daa ñàkki teggin mu jeex takk ah waaw waaw kenn ka ñëw fekk fi fi Seydina Abubakar Sadiq di liggéeye mu ne ko ah mbir xew na de Seydina Abubakar ne ko lu xew mu ne ko sa waa ji de boobu la wax tey ci penc ma tey ji daanaka mu ne su koo dégg mu ne ko lu mu wax mu ne nee dafa demoon Sidratul Muntaha biir Abubakar ne ko bu ko waxee wax na dëgg de allahu akbar keroog la tudd as-Siddiq bu ko waxee de wax na dëgg ci mbokk yi garantie boobu la Abubakar Siddiq def ci yonent bi bu fekkee moo ko wax wax na dëgg wasalaam continuer liggéeyam waaye naan ko mu ne ko dama ne bu fekkee moo ko wax wax na dëgg xaw ma nag su fekkee yaa ko wax yow ulul azmi yooyu kon bi lislaam nekkee juróomi baat alif laam alif siin laam alif yonent yàlla noox moo tabax alif ga kon nag jar naa tudd moom tam jar naa jox njukkal yonent bi tappal ko médaille ñu tudd ko ci alxuraan ay yoon yoon tudd ko aw saar muy suratu nuux inna arsalna nuuxan ila xawmi tabarkàlla boo jëlee yonent yàlla ibrahim moo tabax laam alif ga al islaam yonent yàlla ibrahima moo tabax laam alif ga gu njëkk gi nooxu na ko tabax laam alif gi eh, tabarkalla ibrahima ko tabax laam alif ku njëkk gi ko tabax siin gi Moussa alayhi salaam allahu akbar Moussa alayhi salaam moo tabax siin gi ku tabax laam alif gi Isa ibnu Maryam moo tabax laam alif gi ku tabax miim gi xam ngeen ko yéen ñëpp waaw ku tabax miim nga ma ne xam ngeen ko yéen ñëpp ki yor document bi di ko yóbbul sunu borom moo tabax miim gi sunu boroom war a tamponné nag ca kaw document bi mu yore inna diina inda llahi l islaam waaw tabarkalla wa man yabtaxi xayra al islaami diinan falan yuqbala minhu wa fi l axirati min al xaasirin waaw ku bëgg sama ngërëm ku bëgg sama ngërëm mun naa ah, mun a ko jaare ko ci association bii ma gërëm waaw ku fi ñëw jaaroo ci lu la teg lu la dal teguma la ko yaa ko teg sa bopp ah, kon am nañ règlement intérieur bu bees inna diina indilayil islaam yoor yooru tey bii la ko yonent ba indi woon sallallahu alayhi wa di ko wax waa Makka ñu lànk mu dem wax ko waa dina ñu nangu yëf ya di yaatu ba daj àdduna si ndax yàlla ko yónni kaafatan linnaasi bashiran wa nadira naa leen limal tuuti ci article ya nekk ci règlement intérieur ba <laughs> waaw danaa leen ci limal tuuti waaw leen rek ci suratul isra ngeen gis bi sunu borom tabaaraka wa taala di di di di lim ak di tudd article yooyu tubarkalla ndax saar bi def ne subhaanala si asra bi abdihi layla min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa allazi barak naa xawla li u min ayatina innahu huwa samiu al basir daan ne wa aatayna muusa al kitab xam nga sunu borom boo déggee nim nettalee am loo ci déggee ndax dafa jeexal rek daane wa na naa musal kitaaba nga xam ne événement boobu fi mu doon xewee congrès bi ma ngay xewe ca euh, fa Moussa dëkk walla côté ya Moussa dëkk muy lan ci biir bannu Israël waaw biir bannu Israël te ñooñu doon ñu sotoo ci Nuux te Nuux doonoon abdan shakura banu Israayil nag sunu borom wax ca lam ca wax lépp ca ca ca pénc ma waaw waaye daal danaa leen indil fukki article yi yàlla def ci règlement intérieur bi signé ko inna diine inda la islaam jox ko yonent bi mu xëy di ko tasaare Makka man nga ne kon yoor yooru tey bii la nga xam ne congrès ba jeex na règlement intérieur bu bees la la am léegi tur bu bees la am léegi waaw ma ñëw limal la article yi xëy na waxtaan wi alinéa yi du ci xej euh, alinéa un alinéa deux ndax yooyu da ciy am léeg-léeg ci ron article yeeg ñoom seen yooyu waaye daal ma ma ma limal la grande ligne yi professeur jibi waaw xam naa tey da ko noté incha allah article laa tajal ma allahi ilahan axar ci waaw loolu mooy article un ku bokk ci association bi ñu wax lislaam ku ci bokk fexeel ba bur doon membre sympathisant da ngay doon membre actif sympathisant mooy membre yi nga xam ne <laughs> parti bu ci bari le rek parti bu ci bari le doo dem fenn parti boo xam ne bi ay camarades sympathisants nga am <laughs> bu bu bu bu bu meeting ñëwee loo joxe ñu jël waaw fees sees ya fees ba jotaay ba yuuxul ak tàcc la waaye bu élection yi bu watee jotee ñooña doo ci gis lu mat fukk waaw doo ci gis lu mat fukk waaw tabarkalla sunu mbokk Mamor Dia Padoa léeg-léeg mu woote wax yu mel noonu yàlla na ko yàlla gën a sàmm te aar ko <coughs> kon yàlla dafa bëgg association bi ñu tuddee islam te unité bi demoon ci congrès bi yóbbu document bi sunu borom tamponel ko inna dina la islam day am nag ay règlement intérieur yoo xam ne ku ko def ci association bi nga bokk membre actif nga ku ko dul def mën nga nekk membre mais membre sympathisant nga je pense que nun la professeur <laughs> membre sympathisant moom tabarkàlla li muy jëriñ ci association bëriw nga amut waaw ndax association bi li ci tax a bokk mooy ñaari baat ngay wax rek boo ne ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah bokk nga ci association bi boo ci boole wa iqaami salaa hmm, te danga ko ciy boole mooy tax nga daal di doon euh, kuy fekkee réunion yi ak ak formation yi wa itaay zaka da ko cay boole mooy tax nga doon kuy cotiser ci boole moo tax nga bokk ci ñiy def formation spirituelle je pense que noonu la euh, waxajul bayti da nga ko ciy boole mooy nga man di fekke ji congrès ba international ala kulli haal article un mooy laa tajal ma allahi ilahan axar ci Hmm? waaw ku ci bokk foofu ngay tàmbalee laa tajal ma allahi ilahan axar ndax loolu lam lay jural baaxul hmm? moo tax saa boo solee saw dàll di gisaane lu ji bokk nga ci ñi def loolu moo tax association bi day tere loolu ku ci bokk doo gisaanelu doo pettaawlu doo xaawlu waaw doo doo doo doo yëpp da nga ne xam ne mooy liggéeyum yàlla nga bàyyi ko ak moom bu bëggee bokk ci association bi cest bul bokkaale yàlla ak dara li yàlla li yàllay def ci yow bàyyi ko mu def ko bul na ko yàlla bokk ak diw ngeen def ko mukk mukk benn ngunut bu am solo ndax jël yenn lenn def ko yàlla fa taqauda fa taqauda dalay taxaf xéppéerlu luy xéppéerlu ku toog te du dem fa taquda rek dalay lafañ loo yowmal xiyaam nga lafañ bu leen defeen lafañ yowmal xiyaam dañuy lafañ ni déedéet kii lafañ mooy ki wut ñaari yàlla mooy dekki du ami tànk nit ñi dox wut yàlla moom muy moom muy darngu te siraat na mu mel ku cay darngu di doxe ni noonu da sonn fa taquda mazmuma maxzula ah benn article mu mbokk yi ci document bi nga xam ne moom la alayhi salaatu salaam indi tey euh, biig la ko jëli woon subhaanallah si asra bi abdihi layla jër ngeen jëf ak si nuñ far yëkkatee jataay bi euh, di leen jox rendez-vous de ëllëg incha allahu buñ yàlla dundalee ba suba yàlla ñu dund ba suba te weesu ko nu mbokk yi xëy ci xibaar ñoo nekk ni taxaw yoon seen kayit bëgg la na firiñ fàcc la xibaar yi ci tubaab ah firiñ fàcc leen ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi waaye ak suñu sponsor bi C3S waaw tabarakallahu euh, yal na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara naan da loon coxtaan moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaaha ma tatatu ma tawfiqi illa billah wassalaamu alaykum